bal tànk boo xam ne disons euh, c'est au niveau international mm-hmm. foofu la ko amee ca Paris un euh, commentaire di ko ci ndokkeel rek di ko ci ndokkeel bu baax te ñaan yàlla mu nekk loo xam ne aussi euh, lu amal njëriñ peuple yi la man sax déplacement bi li ma ci gën a ñor mooy Arabie Saoudite gëm jëm parce que mhm. yàlla sommet de lussi yi boo xam ne ça va être organisé en Arabie Saoudite ak par rapport ak question palestinienne bi je pense que le monde musulman quand même affaire yi le 7 le octobre ba léegi ñuy door a daje pour pour pour discuter de la question palestinienne loolu. mais mais tey Sénégal est-ce que joxewul position ba ba noppi. non c'est-à-dire le fait que euh, communiqué bi ñuy defoon euh, wane ni ñu ngi condamné attaques yi am foofu la ca pal ca Israël et tout est-ce que loolu du wane ni Sénégal moom. jël na position la condamné. bi Hamas bi euh, Gaza attaque li nga xam ni moom moo di euh, donc Hamas bi mu ko attaqué voilà loolu gis mhm. nañ mooy le 7 octobre bi mhm. daal di nañ wax ni euh, président de la République en tout cas état bu Sénégal du mhm. mois mi ngi condamné li nga xamante ni moom mooy Israël mi ñu mi ñu attaqué est-ce que tey lu ñu jël position ba pare war a dem foofu noonu du xaw a indi problème est non du indi problème parce que en tant que état souverain la jël position léegi nag day dem en tant que membre euh, de l'organisation de la conférence islamique loolu tamit te Sénégal daf ci yàgg jouer ay rôle yu mag xam nga tey euh, bon conflit boobu fi mu toll nii presque on est à dix mille morts yoo xam ni li ci ëpp ay civil lañu c'est-à-dire ay xale euh, des fois da nga naan sax maanaam au nom de quelle position la nit ñi war a nekk di di ne état yi wala wala non non non li xew mooy il faut nit ñi xam ne ñiy faatu muy victime civile yi du côté palestinien comme du côté israélien yi. Mhm. maanaam jéggi na dayo bu fekkoon ne nit ñi dañu taxaw rek ci un aspect humain euh, gis-gis boo xam ne doomu aadama warut seetaan ñuy fitnaal moroomu doomu aadamam kon réaction bi dina fi ëpp c'est-à-dire euh, état yi dinañu jóg. réagir ci réaction boo xam ne pas pour pour pour jël ay position condamné wala yu demee noonu mais euh, wax loo xam ne dina tax quand ñu cesser violence yi d'abord wala ñu épargner les vies civiles sauf que fi muy amee mhm. y a pas moyen d'épargner les vies civiles c'est ça qui est terrible y a pas moyen de les épargner dañuy yow boo nee ciblé nañu ay ay membre u Hamas ñu dugg ci ay tunnel yoo xam ne suufu benn hôpital la nekk wala yooyu wala benn camp de réfugiés tu tires sur des cibles civiles. Mhm. donc conflit bi boo jàppee ne le 7 octobre la commencé mën nga am position boo jàppee ne c'est avant sa position day varier forcément parce que dafa am ay dates yoo xam ne bu ci ne day day day déterminer sa position ak sa analyse par rapport ak loolu mhm. donc euh, li ci am solo mooy ñu fexe ba ñaari état am fa te Blinken euh, wax na ko euh, la secrétaire d'État américain nee na il faut que état palestinien am bu souverain état hébreu am pour jàmm mën fa am mais munoo fa mujj ñëw am fa état boo xam ne presque yow yaa taxaw déclaré ko parce que après le vote de, du conseil de du conseil de nations unies mais benn Gourion rek moo taxaw déclaré l'état d'Israël gars yi gunge ko mu taxawal état am léegi palestiniens yi ñu ngi ci situation boo xam ne kenn xamul euh, dix mille morts mm-hmm. euh, mën na ko ëpp mën na gën a garaaw te seen tuuma yëf yi taxaw à ce rythme là parce que ñëpp dañ taxaw di seetaan ñi ci ëppit dañuy légaliser directement sax la position d'Israël actuellement parce que dañu dafa fayu mais loolu parce que prise de position on dirait que prise de position moo ëpp euh, recherche de solution. prise de position yi aussi euh, presque français la américain allemand yi ñemewuñu trop dugg ci sujet bi parce que dafa am fu ñu jaar ak l'État ak les juifs carrément le monde musulman kenn moo waxagum koo xam ne ñëpp ñu ngi doon séntu muy wax muy Hassan Nasrallah te Hassan Nasrallah ni mu waxee nekkul ne dafa bëgg a engager le Liban dans cette guerre li mu li mu li muy li muy wax au au moins mooy pour ñu seet solution boo xam ne maanaam jàmm dina gaaw a am ci ci zone boobu évidemment Hassan Nasrallah bu amee position boobu da ngay gis ne aussi Iran position boobu rek lay am da ngay gis aussi Chine dañu def benn silence Russie def nañu benn demande pour corridor de sécurité boo xam ne doon na permettre euh, ñu bàyyi quand même le corridor le, le cortège humanitaire mu jàll mais américains yi ak français yi ak anglais yi ñoo ko bloqué au niveau du conseil de sécurité en disant que il faut que moom mu def une condamnation des actes du Hamas et quand on fait une demande pour un corridor de sécurité ci ci ci ci un corridor humanitaire doo mm-hmm. condamner aucune des deux parties donc euh, yëf yi fumisterie bi dafa finalement d'accord ah. Thiedo euh, Pierre par rapport ak déjà balaa ñuy ñëw sax ci Palestine bi ndax je pense que euh, li nga xam ni euh, Thiedo mi ngi ko doon wax ci sujet boobu la jóge mooy le président de la République qui accepte euh, la proposition de Macron pour nekk l'envoyé spécial du pacte de Paris pour la planète et les peuples noo gisee boobu consécration laa ko mën tuddee wala ndombol tànk. non en fait je pense que c'est juste une incitation à, au renforcement de la démocratie et au respect des institutions et surtout de la constitution parce que le problème des présidents jeunes en Afrique c'est que après la présidence ils n'ont pratiquement plus de vue. Euh, plus de vie et c'est une menace en fait qui pèse sur eux qui font que la plupart d'entre eux s'accrochent au pouvoir. Mmh. Donc, euh, ils ont commencé ça avec Abdou Diouf, ils lui ont trouvé un point de chute et je pense qu'ils sont en train de faire la même chose avec Macky Sall, lui trouvant un point de chute euh, afin d'inciter, en tout cas indirectement, les uns et les autres à lâcher le pouvoir au bout, de, au bout du terme de leur mandat. Donc je pense que moi, c'est cette oui, oh. lecture que, que, que, que j'ai. En fait, ce n'est pas, pas nouveau. Par exemple, il y a eu euh, le prix Mo Ibrahim, qui est là depuis je ne sais pas combien oui. d'années, mm. que personne n'a gagné, euh, qui donne... un salaire ad vitam aeternam, qui donne un salaire à vie mm. à tout président de la République qui quitte le pouvoir démocratiquement au terme de son mandat et euh, en respectant la constitution de son pays. Et c'est très difficile d'arriver à cela. Donc je pense que nous, on on peut se prévaloir quand Wolof. même d'une certaine yeah. <laughs> démocratie <laughs> parce que en fait euh, Abdou Diouf toog na fi vingt ans élection moo ko fi jëlee mhm. Abdoulaye Wade toog fi douze ans élection moo ko fi jëlee mhm. Macky Sall toog fi douze ans euh, xaarul ku ko fi jëlee dafa ne dafay bàyyi donc je pense que y a un acquis démocratique qui est là te yaakaaruma mhm. dinañ amaat beneen président buy ñëw di wax waxu troisième mandat mhm. je pense que cette question là est définitivement réglée dans notre histoire mhm. et je pense que en tant que tel ce n'est pas mauvais que la communauté internationale trouve à Macky un point de chute parce qu'il est encore jeune il a de l'expérience nekk euh, euh il a présidé à l'Union africaine Donc je pense que mm -hmm. c'est une bonne chose en fait. anticiper nañ un peu sur le débat sur euh, la situation euh, palestinienne ne jamono ji euh, guerre bi nga xam ni moo leen opposé ak euh, lii di Israël aujourd'hui euh, lan moo ci se gis-gis parce que quand même semaine bii rek en début de semaine on dénombre un bilan de dix mille morts depuis deux mille depuis le 7 octobre bien sûr tey la communauté internationale li nga xamante ni moom moo di seen taxawaay surtout face à cette ce conflit là naka nga ko gisee d'abord man je pense que y internationale elle n'existe que pour les faibles. Mhm. man laa gëm. que pour les faibles. oui la communauté internationale existe que pour les faibles les pays sous-développés les africains et autres loolu laa gëm loolu mooy benn beneen bi mooy que il y a un truchement dans le positionnement du Sénégal sur cette histoire-là au moins pour deux raisons le Sénégal doit être ferme et très ferme xam nga lu tax. benn bi mooy depuis 1975 Sénégal mooy jiite la commission des Nations Unies sur le droit des palestinien à s'autodéterminer mhm. boobu mooy benn beneen bi mooy nous nous avons été colonisés je pense que tout peuple ayant été colonisé doit condamner fermement la colonisation et ce qu'Israël est en train de faire c'est une colonisation contemporaine qui se passe sous nos yeux te kenn waxul pourquoi une colonisation mais parce qu'ils ont colonisé des territoires qui n'étaient pas les leurs partir je pense que de l'installation de l'État d'Israël quand tu regardes la carte de l'époque yem fii mhm. euh, palestiniens yi yem fii mhm. mais après la guerre des six jours les Palestiniens les Israéliens ont pris des territoires qui n'étaient pas les leurs installés au fa quand aujourd'hui c'est des colons qui sont sur un territoire qui n'est loolu mooy dëgg boobu mooy benn beneen bi je pense que l'État du Sénégal quand même a été euh, a manqué de précaution mmh. tu ne peux pas condamner le Hamas parce que le Hamas est un parti politique qui a gagné des élections il y a des gens qui se réclament du Hamas qui ont perpétré des attaques terroristes tu peux condamner les actes terroristes attention mën nga condamner les les actes. que l'État du Sénégal condamne les actes terroristes mais quand tu dis je condamne le Hamas pêle-mêle comme ça en, en, en prenant le Hamas comme une euh, organisation euh, uniforme et, et homogène ça ne passe pas ça ne passe pas géostratégiquement ça ne passe pas parce que cela témoigne d'une méconnaissance des réalités du terrain et je pense que Sénégal mais déjà balaa ñuy foofu euh, yaa ngi wax acte terroriste déjà am na ñoo xamante ni ils ne sont pas du tout d'accord sur le terme parce qu'on a vu que depuis un certain temps même ceux qui refusent de qualifier ces actes de terrorisme de terrorisme ñi ngi commencé di leen diaboliser un peu partout. non il faut appeler un chat un chat c'est un acte terroriste. que l'acte maintenant soit motivé par une vengeance ça c'est autre chose mais l'acte en tant que tel est un acte terroriste. maintenant quelles sont les motivations de cet acte-là ou de ces actes ça c'est un autre débat. je pense que bu ñuy waxtaan dafa am yoo xamante ne ni il faut il faut sérier le discours de telle sorte que on va pas tout mettre pêle-mêle parce que à ce de de compréhension que Israël xam nga le projet Israël n'a pas commencé en Palestine avant la Palestine il venait il voulait venir en Afrique en Ouganda les Britanniques leur avaient proposé l'Ouganda mm-hmm. ils ont refusé ils voulaient le Sinaï égyptien et les Britanniques ne voulaient pas leur céder le Sinaï égyptien pourquoi parce qu'il y avait le contrôle du canal de Suez, donc du commerce international. Donc c'est un conflit vieux comme le monde. Maintenant, ce que les Israéliens ont réussi, ils ont réussi à... En fait, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé une, une, une diplomatie de la périphérie. C'est-à-dire, ils se sont dit, OK, nous avons un problème avec la Palestine, OK, mais on va aller voir tous les pays qui entourent la Palestine et on va faire la paix avec eux. on va avoir des, des relations de coopération. Et je mhm. pense que ce n'est pas la première fois que la position du Sénégal vacille sur cette question israélienne. Euh, pourquoi Parce que nous avons des rapports, des relations de coopération avec Israël. Et je pense que ce n'est pas, ce n'est pas Et acceptable. la, euh,